Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité et activez la cloche de notification. Des parents adresse au peuple sénégalais, aux autorités, à l'opinion nationale et internationale et alerte. Désemparés, le cœur meurtri et amer et le collectif des parents suite à la déclaration du 3 février des autorités sénégalaises dans les médias. message certainement tronqué, mais qui a, ô combien, fini de jeter le désarroi, la confusion et l'émoi dans l'esprit de beaucoup de parents qui auront simplement retenu que le Sénégal allait livrer ses fils à une mort annoncée. Cela au moment où d'autres pays comme la France, comme le Maroc, comme la Tunisie, comme l'Algérie, ainsi que la proche Mauritanie, pour ne citer que cela, ces pays ont fait diligence pour rapatrier leurs compatriotes qui, selon ses propres ressources, qui, avec le concours et le support logistique d'un pays ami, la solidarité internationale joue. avec près d'un demi-millier de décès en dix jours. La situation empire chaque jour davantage et le monde entier concerné s'active. Confiant en nos autorités, nous, parents, avons su, stoïques, avons su garder dignité et gérer sans bruit jusque-là en rapport direct avec nos enfants. nos enfants, veillants et résilients, gardant un moral d'acier, sont clairs quant à leurs vœux et souhaits. Ils veulent sans équivoque leur exfiltration immédiate afin que le Sénégal ne rapatrie la dépouille de ses fils victimes de coronavirus. Si le malheur survenait, Ils ne veulent point être incinérés. Les enfants sont en parfait état de santé et exigent un minimum leur droit d'être secourus par leur mère patrie. L'urgence d'évacuation de Wuhan ne concerne que 13 étudiants seulement qui, répétons-le, sont en parfait état de santé. fort confiant que sous le magistère du président Macky Sall, le Sénégal a su faire face dans un passé récent avec brio au virus de l'Ebola, avec la création d'une cellule de crise et l'aménagement d'un site de mise en quarantaine. Fort conscient que le Sénégal a su construire une diplomatie de haut rang, estimée, voire enviée de ses pairs, le collectif des parents dès lors clame qu'il n'y a nul doute que le Sénégal a bel et bien les ressources amicales, les ressources diplomatiques, les ressources humaines, les ressources financières, les ressources logistiques pour procéder au rapatriement d'urgence de ces enfants. Après la rencontre de concertation d'hier avec euh, l'État, l'État a promis de prendre des mesures diligentes. Le collectif a foi aux autorités sénégalaises pour prendre toutes les dispositions idoines, conservatoires qui s'imposent pour ne serait-ce que rassembler tous ces étudiants dans un premier temps en un lieu sûr et sécurisé, facile d'accès facile d'approvisionnement en denrées, en masques et autres équipements sécuritaires. Pour finir, plus que tout, plus que jamais, nos enfants ont besoin d'entendre de leurs président. Nos enfants ont besoin d'entendre de leur peuple que la mère patrie ne les lâchera jamais, que la mère patrie ne les a jamais lâchés. à nos chers et dignes fils, nous disons tous que nous vous aimons. Un peuple, un but, une foi. Il n'y a pas de hiérarchie dans ce collectif. Il y a des parents dignes, il y a de hauts cadres religieux, de hauts cadres profanes parmi nous. Et donc c'est uniquement des pères d'enfants qui vous parlent aujourd'hui. Un appel vraiment à tous les pays voisins, à tous les pays africains. mais nous lançons solennellement un appel au monde entier pour venir en aide à la Chine. Nous remercions et nous leur crions haut et urbi et orbi, que nous sommes solidaires avec la Chine. La Chine n'a ménagé aucun effort pour que ce fléau soit arrêté. Nous tendons la main parce que nous avons le même combat à tout pays, à tout parent qui veut mener ce combat-là de rapatriement, de sécurisation, de protection, d'assistance, de devoir moral d'assistance euh, entre, euh, euh entre citoyens du même globe. Vraiment, nous avons une, une concertation sereine, euh, fructueuse entre responsables, avec le secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur, Et vraiment, on a eu séance tenante lors de cette euh, séance des appels des différents ministères concernés, que ce soit le ministre des Affaires étrangères, que ce soit euh, le ministre de la Santé, qui, au moment de la rencontre, ont appelé vraiment pour rassurer, s'enquérir. Nous avons entendu certaines choses. Nous attendons de voir vraiment euh, déployer euh, les actions promises. La rencontre a eu hier soir.